comme niñ leen ko waxee woon wàllu ñaareel bi cheikhuna docteur Mouhamed Ahmad Lo xafidahullah moom moo ko war a taxawee mu jëm ci addaawa al islamiya tasilan wa raddan muy woo ci lislaam diggante di ko saxal ci ay cosaanam ak di delloo lënt yi nga xam ni waaye lënt yi ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci andi kon cheikhuna tafaddalu mashkurina mahjurin ñu koy ñaanal yàlla sàmm ko dëgëral ko daal di koy aar mbokk yi nag bon cheikhuna yatmuruna fa nutia bu toogee fii wax fii ba suba insha allah na tamatta te dana antum maay ci hada waaye bu leen neexee ngeen tënk ci 30 minutes comme ni ko mbokk yi waxee wa ida shitum takkuruna maana ila alfajr wala tamatta insha allah jazakumullah xayr إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi di leen sargal di leen gërëm di leen sant ci liggéey bi nga xam ne ci lañ nekk woote jëme ci lislaam ci yitte yi gën a tedd gën a màgg ci la bokk yitte yi nga xam ne ab jullit dana ko taxawe bokk na ci yi ci gën a màgg mooy woote jëme ci lislaam su fekkee ne du mooy bi ci gën a màgg sax borom bi tabaraka wa taala nee na wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin kon amul kenn koo xam ne moo gën a rafeti wax ki woote jëme ci lislaam su fekkee mbir ma noonu la demee nag dana jaaru képp kuy woote jëme ci lislaam nga jéem a góor góorlu ba àgg ci li ñuy wax alkamaal maanaam mbir ma nam gën a mate su fekkee ne nit ki day góor góorlu ci mbir nag bëgg caa àgg ci kamaal maanaam ak mat faw lépp lu mu am ci ay pexe yu sharia tere wut ngir àgg foofa dana ko jëfandikoo cant gi li ko waral mooy occasion bi ñu ma may pour bokk ci jataay bu am solo bi jëm ci woote jëme ci lislaam ndax kat woote jëme ci lislaam ginnaaw moo doon yittey yonente yaag nit ñu baax ña ak ña doon defar dem ba bëgg démb kuñ ci jox aw sas doonte fukki minute la sax yow ñu ngi lay teral ci ab liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la kon programme gi ngeen programme jataay bii ci seen liggéey bii ngeen di def fii muy ëb lël programme bu am solo la rawatina ñi ciy daje ak suñ mbokk mi di al oustaz Diadji Dramé mu tàmbalee ci leeral liggéey bi ci anam boo xam ne noonu ñëpp noo ko déggandoo mu doon lu leer nañ ci tàqali gi mu tàqal diggante woote kenn ak woote mbooloo lii nag dafa jëm ci woote lislaam ci diggante li ñuy tudde ak taasiil ak li ñuy tudde ak raat loolu moo tax suñ dee séddalee këyit yi ma tiim ci lu aju ci wàllu plan muy xutta kon ñaari bunt rekk lay mën a taxawe benn bunt bi mooy lu jëm ci wàllu tafsil beneen bi mooy lu jëm ci wàllu rat kon ñu tàmbalee ci lu jëm ci wàllu tafsil ci daawa tafsil mooy lay cosaan ci woote jëme ci lislaam mooy sukkandiku ci alquran ak sunna ngir taxawe woote daawa ci xam-xam leeral ko ci anamug la ko tax a jóg muy ahdaaf ya ak maqasid ya leeral ko ci wàllu taarixam muy ay jaar-jaaram ak i jalooreem leeral ko ci wàllu ay manahijam leeral ko ci wàllu ay wasaailam ak i asaalibam muy doxiin yi nga xam ne moom la wootekat yi war a dox ak yoon yi nga xam ne moom lañu war a sóobu ngir jot li daawa boobu yi loolu mooy tafsil ki toll ci tafsil day jàngale day jàngale li nekk ci alquran ak sunna te aju ci daawa waaye kañ koy jàngal te àggagul ci dëgër dañoo bëgg mu yem ci di jàng ab xam-xam bu ànd ak dalil waaye du defagun yitteem ci tontu ñu nekk ci bittib lislaam di sànni ay xeer wala ñu nekk ci biir lislaam jeng te yëguñu ne jeng nañ wala amaana yëg nañ ko kon daal balaa ittewoo di xuloo ak a tontonte na fekk def na di ñu wax tafsil ba noppi muy dëgëral boppam ndax lu dul loola dana ñëw ci kanam ne lool yi du ko mën a taxawe woote jëme ci yàlla nag borom bi tabaraka wa taala da ci wàcce lu bari ci alquran jëlal rek bu la soobee udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati al xasana wa jaadilhum billati hiya axsan foofu borom bi tabaraka wa taala dafay digal ab yonentam ne ko wooteel jëme ci sa yoonu borom nu may wootee wala lu may wootee mu ne bil xikmati wal mawidati al xasana booleel xikma muy lenn lu nekk nga teg ko ca barabam ba yell boole ko aku waaraate gu rafet bu werante ñëwee muy tontonte nga defe ko ca anam nga gën a rafet kon wa jaadilhum billati hi ahsan ma ngay junj jëm ca geneen wet ga nga xam ne danañ ca wax ca kanam muy di jëm ci wàllu ràdd jëlal bu la neexee wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkari wal takun minkum na am ci seen biir ummatun maanaam mbooloo wala ab kuréel yad'una ila alxayri wa yamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar kon nga xam ne digle lu baax ak tere lu bon ci biir daawa la bokk wala mooy daawa sax mu tekke ne ulaika humul muflixuun ñooñee ñoo texe jëlal qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin waxal yow yorente bi qul haadihi sabili waxal ne lii mooy sama yoon laay jooju buñ ci taxawoon rek lépp lu aju ci tafsil ci wàllu daawa mi ngi ci qul haadihi sabili ci benn baat mooy déclarer li nga nekk sa daawa warta am lu ñuy laam-laame ndax naan ci lii la nekk wala ci lee la nekk dafa war a leer ñu xam ne yow mii ci nangam nga nekk ku cay ku la cay fekk fekk la ca ngeen bokk nekk te ku lay bàyyi it bàyyi la ca waaye daawa bu lënt baaxul lu bari ci nit ñi dañuy defe ne nit ñi mën nga leen a nax di wax wax joo xam ne danañ ci déggee ne yow mii lii ñu nekk sori woo leen ngir nga dugg ci seen biir ngir mën leen a xëcc ci li nga nekk déedéet nit ñi boo duggee ci seen biir ginnaaw ñoo la gën a bari te ëppoo leen i pexe te bu dee xelam kese ëppale woo leen ko boo tudd yow yaay sooy ci seen biir kon kay yow la nga nekk moom na leer nañ rek ñoo xam ne kii moom ci lii la nekk kuy ànd ak moom ci loolu ngay ànd ak moom kuy tàggoo moom ci loolu ngay tàggoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko defe woon ba mu dikkee taxaw ba ko yàlla digalee ne ko jógal yaa ayyuhal muzammil qum fa anzir dafa génn taxaw yéeg ci kaw doj ñëpp di ko seen mu yéene ba ñëpp ñëw mu ne leen qulu laa ilaha illa allah mu daal di leer nañ ñu xam ne kii li muy woote nangam la ci la jëm kon qul hadihi sabili mooy lan ad'u ila allahi woote jëme ci yàlla foofu tomb bu am solo bi fii mooy wootekat bi day woote jëme ci yàlla wootewut jëme ci ay slogan bi ñu tudde ay shiaraat déedéet loolu tax koo jóg wóotewul jëme ci aw askanam wóotewul jëme ci mbooloom wóotewul jëme ci ab dëkk wala am réew wala sax ab continent léeg-léeg nga dégg nit ñi ni ñuy waxee dafa mel ne lislaam daa am lislaam yoo xam ne lislaam yi Afrique la ak judul doj Afrique wala lislaam yi Sénégal ak lislaam yi ñeneen nga dugg ba biir Sénégal am lislaam yi kër diw ak lislaam yi kër diw wala lislaami association sàngam ak lislaami association yooyu yëpp dara am ci adu ilallahi kii woote lenn lay woote jëme ci yàlla muy woote alquran ak sunna ala basiratin nag borom xam-xam yépp di firi alquran dëppoo nañ ci ne al basira foofu mooy xam-xam loolu danañ ci ñëw ci kanam pour ñu xam kii liggéey ci daawa ngànnaay yi mu war a yor ana wa man ittabaani lu am solo la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci lii la nekk day déclaré wooteem ci yàlla dong wala woote jëmewlu ci leneen ci xam-xam la tegu nga xam ne làmboona xikma làmboona mawisatul xasana làmboona yeneen yu bari waaye yemut ci moom dafa ne ana wa man ittabaani loolu mooy wone ne daawa ci boppam dafa am manhaj dafa am yoon bu muy jaar woo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xàll na ku jóg ku ne yoon woowu ci nga war a jaar ni mu la jàngale julli jàngal la koor jàngal la aj jàngal la nu ñuy joxe asaka noonu la ñuy jàngale it nu ñuy daaw lu jëm ci nag tafsil daaw yi bu fekkee dañ koy séddale maanaam nga xam ne tëriinu daawa niñ koy jànge laaj na ay tomb maanaam tafsil la budda an yashmala adadan min alxutwaat wala ay tawsifaat bu la neexee nga tudde ko ay simaat ki nga xam ne dafay tafsil faw am ay tomb yoo xam ne munta bañ a daje ci moom ba ci jëkk mooy itqaan al manhaj nabawi wala li jiitu boobu sax badlul juhdi fi itqaani al ulum shar'iyya faw mu def effort ci jàng xam-xamub sharia ñaareel ba itqaan al manhaj an nabawi fi daawati ila allah bu jàngee ba am xam-xamu sharia muy masalay diine dafa war a wëlbatiku jàng manhaju yonente bi alayhi salatu wasalaam ci daawa jàngaane sax manahijul anbiya ci daawa ndax lépp ay duruus la ba jeex ñetteel ba istishaaru ahamiyati daawati ila allah wa ishgaalu alfikri biha wa tahyiyatu nafsiyatu laha dana jaaru nit ki nga xam ne dafa bëgg a def li ñu tudde tafsil ci daawa toll ci marxala boobu na am yëg-yëgub daawa jaral ko doon loo xam ne da ciy xalaat guddi ak bëccëg di xalaat ci ay ay plan yoo xam ne ñoom la war a teg am yëg-yëg boo xam ne dafa yëg ni moom mii dafa ñëw fii ci kaw suuf ngir jàng lislaam ba xam ko wëlbatiku di ko jot yëg-yëg boobu mun ko ñàkk faw mu yor li ñu tuddee alhamu daawi ni ko yeneen yi di yitteele yittewoo gim yittewoo daawa daa war a nekk ci bopp bi yitte yooyu ni ngay gisee commerçant ba jamono yu nekk may gëstu di xool marchandise yi man marchandise mooy xam bu ko jëndee fii mu nekk nii dana yomba jaay te bu ko jaayee dana ci am prix di toog di xalaat loolu di ko gëstu di ko xool ci marché yi di ko liir ci journaux yi di déglu ci rajo yi di xool ci internet beeg àdduna ak ya dox bu noppee ban marché la ko war a yóbbu ndax mbir ma gën a dox xeet yooyu bu guddee lépp buy nelaw sax ci lay gént kon kii woote jëme ci lislaam yitte jooju la war a jox daawa ñeenteel ba al ihtimaam bi fiqhi al maqasid al daawiya dëgg la jàng xam-xamu sharia bi rek xam dalil yi loola lu am solo la waaye nag jëmmi daawa ci boppam ki koy jàngat dafa war a xam li ñuy tudde maqasidu daawa al islaamiya muy jëmmi woote ci lislaam lan moo ko tax a jox dëgg-dëgg ak i meññatam beneen ba muy juróomeel bi alihti- alihtimaam bi fiqhi nawazil yittewoo xam-xamu fiq bi ñu tudde nawazil ndax kat kii woote ci lislaam su ko bëggee ak su ko bañee lépp ab delluwaayu nit ñi lay doon ci wàllu xam-xam maanaam faw danañ ko laaj ay masala masala yi ñuy laaj am na ci yoo xam ne tontu laa nga fa di tege bu ñëwee da koy jël rek mu mel ni benn boyat boo xam ne dañ koo defoon ba teg ko ci enveloppe day jóg rek jàngal ko borom ne ko lii kat la ci borom xam-xam yoo waaye am na yeneen nag yoo xam ne boo ko dee seetal boyat doo ko gis nekku fa ndax masala bi ci boppam muy door a am la amul woon fan la ñuy jëlee tontu la mooy dellu nag ci qawaidu sharia wa maqasiduha wa maqasidiha door ko mën a tontu fan faw nga xam régal yi nga xam ne moom la sharia teg xam itam jëmmi maqasidu sharia muy àtte yi muy def ya muy santaane lu tax mu di ko santaane ya muy tere lu tax mu di ko tere yim daganal lu tax mu daganal ko yim xaraamal lu tax mu xaraamal ko yooyu bu ko xamee ba xóot ca su masala mu yees ñëwee su delloo ca yooya mi qawaayidu sharia yi ak maqaasidu sharia yi day daal di xam ne masala mii day ku jëfandikoo jubluwaayu sharia dëgg dëgg dëgg ci ay atteem xam nga ne ab atteem lii lay doon moo tax daa aya bi munta ñàkk mu am xam-xam fiq la ca tegu mooy al inaayatu bi dirasat al baxsiya faaw mu nekk boroom yitte ci étude yi nga xam ne waroom xam-xam yi ñi ngi koy def ci wàllu daaw te it loolu dafa war a doon yitte joo xam ne yitte université yi la ndax la chaque année monde islamique bi ñu nekk tey li fi nekk ci ay université ak ay faculté yoo xam ne charia moo leen tax a jóg yenn yi sax daawa moo leen tax a jóg ñu tàggat ndaw ñi ba ñu xam ci bunt boobu yi waaye ña toll ci def ay thèse itam ñu digal leen ñu joxe ay buxuus muy ay mémoire yoo xam ne dañ koy bind mu jëm ci wàllu daawa ci wàllu tafsil ko ba ku jóg boo jëlee téere sàngam boo ko jàngee da nga xam ne daawa kat moom ndekete dafa am ay ponk yoo xam ne fii ngay jaar su fekkee ne da nga bëgg a woote jëme ci yàlla juróom-ñaareel ba xusnu taxtiit li daawati ila allah mën a teg ay plan yoo xam ne yu rafet la ci daawa foofu tomb la boo xam ne lu bari ci wootekat yi wax dëgg yàlla sàggane nañ ko mooy ak taxtiitu daaw yi lu bari tey ci imaam yi boo leen laajoon yan plan nga tegal say xutba ak benn xutba bu ci nekk thème bii nga ko jox lan nga ci jublu ci ñii nga war a waxal tey loo ci jublu nga mën a teg plan boo xam ne ñaari weer yoo xam ne danga naan bii xutba bu ñëwee am na tomb bu mu bëgg a saafara bu jàllee ba cay tegu am na beneen tomb tomb yooyu yëpp buñ boolee dañuy jur nangam misaal rek lay def ci xutbatul juma ne daawa gën naa yaatu loolu lu bari ci imaam yi duñ la tontu tontu loo xam ne ci plan la nekk léeg-léeg ma gis ci lenn ci groupe yi ñu dem ba ne suba la ajjuma ma gis ku naan waaw kan moo ci préparé kon ab xutba waay xam ne su amee kenn ku préparé xutba la mu bëgg mooy mu jël ko moom dem xutbaa ji ko kooku amul plan amul plan boo xam ne jumhóoram mi mbooloo mi koy déglu dafa am lu mu leen yoreel loo xam ne dafa am fu mu leen bëgg a jóge jële ak foo xam ne fa la leen bëgg a yóbbu ndax bu réere mbir ci ni jàkka ji nga xam ne xas na dem ba nit ña tënku ci jàkka joojee nga xam ne ngànt dog moo mën tax julli suñ ci jàkka jooju ajuma jàkka jooju moo ab université ñoo yem programme la war a yor programme boo xam ne xam nañ ne fii ñaari weer ñii danoo bëgg nangam nekk ci ñoom ñaari weer yooyu su jàllee dañoo bëggaat nangam nekk ci ñoom ma jàpp naa ne lépp koñ boo xam ne jàkka sosu na fa jàkka sosu na fa seen plan bu njëkk ci xutba fekk nit ña daawuñ déglu ay xutba la war a jiitu mooy nit ñi fan la ñuy jële seen diine nit fan jullit bi fan lay tànqe diineem li mu war a jaamoo yàlla tomb boobu su ko tegalee plan ñaari weer ñetti weer ba ci juróom benn weer sax fexe ba nit ñi xam loola ndax xam ne liggéey na liggéey bu rëy boo xam ne bu ëllëgee mën naa départ bu ko neexee mu jàngale julli bu ko neexee mu jàngale koor bu ko neexee mu wax ci yeneen ak yeneen waaye ak taxtiitu daaw yi xaw nañ cee sàggan lool te importance bu foo ko takk weesu juróom-ñetteel bi mooy ak tadrib al mustamir di tàggatu nag di tàggatu ci daaw lu mënta ñàkk la lu bari ci nit ñi tey rawatina suñ jamono jii lu nekk réseaux sociaux yi xam naa ne buñ doon nit danaa ne seen bàkkaar rëy na lool ndax dañuy fekk nit koo xam ne ndeysaan am na yéene bëgg na lu baax bëgg naa woote te fekk benn jàngagul xam-xam buñ dee waxante dëgg dañ naan jàngagul xam-xam dëgg la jàng na dara fort na dara ci ay téere nga xam ne li jaadu woon ca moom mooy di xëy di dem ci jàngalekat mu di ko jàngal mu jékki-jékki dugg ci géewub daawa yor wenn waxin waxan wu tàng la lii suñ daraame doon wax léegi réseaux sociaux yi daan koy yëkkati mu nekk star ñu ne kii star la léegi ci daawa dafa am ay fans noonu lañ koy waxee mu daal di gis boppam yëkkati boppam la tolloo ña tag ña jàngi woon xam-xam tàggatu def yépp nekk ci daawa ñu ne kenn la ci seen biir moom itam moom it mu yëg ne moom it kenn la ci seen biir fa muy dóor boppam ak na muy doxale ba muy dóor boppam ci miir muy toj kenn doxam xel day dem ba mu yàgg la muy yàq ci daawa du muy ëpp la muy defar te kat lu baax a ko tax a jóg yéen yu sell la yow dafa bëgg a woote waaye fitnaal nañ ko ndax nit ñi ku leen wattuwul dañ lay fitnaal dañ lay yëkkati ba teg la koo xam ne nekkoo ko Abdullah ibn Mas'ud dafa jóg di dox ñetti nit topp ci moom di dox mën leen fu ngeen jëm fu ngeen jëm ne leen toog leen zullun littaabii wa fitnatun lil matbuu lii ngeen di def nii toroxte la ci kii jóg di yalang yàlla ngi topp ci kay dem toroxte la ci moom waaye fitna la ci ki ñuy topp ci moom itam wax ne su jógee boolooy topp ci moom ñu ne warta dem moom doom kon loolu yi réseaux sociaux yi ñu ngi koy def ci biir daawa bi di yàq lu bare bare bare bare li sëñ bi doon wax léegi dafa am solo daawal fardiye boobu bari na ay duwaat yoo xam ne amoon nañ ci ay capacité yoo xam ne suñ leen jëloon dugal leen ci biir mbooloo mi jëflante ñoom fa ñu war a jëflante ñoom ñu jaar fa ñu war a jaar bu ñu génnee seen njëriñ kenn doo xam ne mi toll waaye beru googu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon innama yakulu dibu min alganami alqaasiya gàtt bi beru àndut ak yeneen gàtt yi ci des till gi bu ñëwee ñoom lay jàpp bu ñëwee ñoom lay jàpp ba ca tegu mooy al tatwir al mustamir bul dem mukk ba mu yàgg nga ne man ni ma mel baax na déedéet du kenn ci duaat yi koo xam ne war naa dem ba ne àgg naa fi ma jëmoon léegi ab wootekat laa boo xam ne mat naa sëkk déedéet continuer di tàggatu jumtuwaay yi ñu tàggatoo yu bari la nit ki boppam sax mën na koy tàggat mbooloo mi mën nañoo tàggat seen bopp groupe bi mën nañoo tàggat seen bopp juróomi nit mën nañoo daja tàggat seen bopp mbooloo man luñ bari bari luñ néew néew mën nañoo tàggat seen tàggat googu yi li ci ëpp solo ay tomb la taqyimul ada xool yow nii ngay def ndax nii la wala déet lan moo ci nekk ci ay say résultat ndax yoolu daawa bi nga ko sóoboo lan la la jural lan la indi ci ay résultat ñetteel ba ndax dul bannaa déglu ñeneen ñi li ñuy wax ci yow am na ñoo xam ne moom tabaarkàlla lépp loo def rek baax na diw moom lu mu def lu jóge ci moom rek mat na baax na am ñoo xam ne dara lu baax lu jóge ci yow ñi la ëppal njariñ tey yow daaya bi su fekkee daawa la tax a jóg mooy ñi lay ñiy wax ci yow di la ŋàññi di wax ci saw doxalin di wax say ñooñu da nga leen war a déglu bu baax ba xam li ñuy wax ndax am na ci luy dëggam déet su ci amee luy dëgg rek gaa war a réparé loolu muy njariñ yee ñuy wax su dul dëgg nag santal yàlla ndax yaa ngi am tuyaaba maanaam ñu ngi lay wax loo xam ne lu dul dëgg la di ko teg sa dara nga sant yàlla kon naqdul bannaa ci la bokk mutaabaatu tatawur at-tiqni wal ifaadat minhu fi jamono toll di dox ci ay jumtuwaay yu xarala yoo xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy jëfandikoo tey daaya bi munta bañ a góorgóorlu ba xarañe ko man cee jariñ te wattu cee lool bokk na ca yi nga xam ne munta ñàkk ci tatwir mooy at tamkiin wa tawris fépp foofu mbooloo nekk di liggéey war nañoo xalaat ne mbooloo mii ñii fi nekk tey di ñoo fi sax ba faw faw ñu tamkiin ñeneen lañ xamoon ñu xamal ko ñeneen ba amaana ñu gën leen sax suñ noppee tawris leen mooy commencé di leen jox ay rôle di leen sas ay sas ñu di ko def ci seen kanam ñu di leen gis di leen xutbaloo di leen jiiteloo di leen jiiteloo sax ay mbooloo di leen taxawloo organiser ay séminaire ay nangam di leen xool ba xam ñoom liñ leen doon tàggat ba léegi ndax mën nañ ko wala déet kooku mooy ak tamkiin wa tawris bokk na ca mooy muraaat al fawaariq al taxasusiya ci biir daawa bi bu fekkee dañ koo organiser kenn ku nekk am na loo gën a man diw mii daal xam nañ ne bu dee ci wàllu organisation moo ci mën yëpp ñu ne ko diw organisation baa ko diw mii ab jàngalekat la boo xam ne bu dee da ngay jàngale téere yu yàgg yi nga xam ne mooy baas ci xam-xam loolu la man ñu ne ko diw féeteel ci loolu diw mii nangam la gën a man dialogue ak wax ak ñeneen ñi xëcc leen indi ci biir diini ji wala ci biir sunna nga di ko diw féete wal loolu loola ci lu mënta ñàkkal boobu yooyu ay tomb la yoo xam ne dañ ci romb noonu te gaaw jàll yëf yaa ngay sori damay jël lu bare bari ndax tomb yooyu ma doon tudd benn bu ci ne am na détaillé bu ne ci kër yi waaye ñëpp jóge kon ci wet googu nga xam ne mooy tafsil jëm ci wet gi nga xam ne mooy radd muy nit ki nag bu amee tafsil ba góorgóorlu ci lislaam ba nga xam ne dara desu ci lu dul war a ton tontu ñeneen lenn ci nit ñi dañuy wax naan waaw nan lu tax nun nuy jóg di tontu ñeneen xanaa mënuñu leen a bàyyi ñu nekk ci seen i biddaa wala ci seen kéefar wala ci seen nàngam te noonu nu nekk fii leeral dëgg bu ñu ko leeralee rek bu dëgg leeree neen dana dem dañuy wax ne loola ay wax la waaye dëppoowut ak alxuraan ni mu tëri alxuraan ni mu tëri mooy tontu munta ñàkk munta ñàkk ci diine ji mujaadalatul muxaalifin ñi nga xam ne dañoo nekkul ci biir diine ji ñuy jaloke ak ñoom di weccente ak ñoom ñi nekk ci biir diine ji te jàdd yoon wi munta ñàkk loolu moo tax asalafu saalix dañ doon wax ne arraddu ala almuxaalif min usuli lislaam ki jàdd yoonu lislaam tontu ko ba mu del siwaat loola ci cosaani lislaam yi ci la bokk wa maqasidihi al azima wa gaayaatihi al uzma borom bi tabaraka wa taala ci biir alquran al karim boo ko dee jàng li ci nekk ci ay laaya yoo xam ne dañuy tontu ay yéefar ak ñu jeng ëpp na nangami téeméeri laaya yoo xam ne ci loolu lay wax du yées ñeenti téeméer ci ñi ko doon jéem a takk lu yées ñeenti téeméer laay yoo xam ne dañuy tontu borom bi tabaraka wa taala tontu na ahlul kitaab seeni lënt mu delloo leen ko tontu na mushrikoon yi mu yéefar yi nga xam ne yéefar yéefar lañ tontu na mbooloo yi tontu na sax ay benn benn nit borom bi tabaraka wa taala tudd na bay tontu ay mbir yoo xam ne yu suufe la yoo xam ne am xel sax waru koo mën a nangu wala fitra muy ñi dem bay wax ne borom bi tabaraka wa taala dafa am soxna wala dafa am saaxiba wala borom bi tabaraka wa taala dafa am doom wala borom bi tabaraka wa taala dafa nay wax yoo xam ne suufe la am xel mënu koo nangu ñi ko wax borom bi tabaraka wa taala tontu na leen ci biir alquranul karim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la mbiram dem ci ay tontam nga ñëw ci saxaaba yi fekk ne képp ku mas a taxaw ci kanam daaw bi boo waxee sulu noonu dañ lay tontu fi saasi ba ci seeni shuaraaw sax waykat yi ci biir saxaaba yi dañ doon tontu waxkat ya nekk ci bitti di sànni lislaam wala di sànni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xeer amma nag asalafu saalih li ko tàmbalee ca mujjug ñaareelu siècle bi ba ci ñetteelu siècle bi ak gannaaw loola li fi nekk ci ay téere waxuma de ay ay kàddu yu romb waaye ay téere yoo xam ne dañ koo taalif ngir di tontu ahlul ahwa muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biddaa moo xam dañoo nekk ay xawaari dañoo nekk ay sabaiya wala ay qadariya wala moo xam xeetu jeng wuñ jeng wu nekk la nekk foofa ci ay ay téere jot naa cee xool xool bu gaaw rek gis loo xam ne ëpp na ñeent fukki téere yoo xam ne yépp dañ koo taalif ngir di tontu tontu ay nit kon tontu yi ci ëpp solo mooy dindi lënt yi nga xam ne dafa aju ci wàllu pas-pas waaye yemul ci loolu ay lënt dafa am yu aju ci pas-pas am lënt yu aju ci jaamu yàlla yi am ay lënt yu aju ci jikko yi lënt yi nga xam ne noonu lislaam yi moom la ñuy indi du jeex moo tax xeet wi mënuñoo ñàkk ay nit ñoo xam ne dañoo jug di taxawee liggéey boobu al imaam ibnu qayim dafa wax lu am solo fii bal lu jiitu loolu sax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jaahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum muy xadis bu bu am qiima xadis yépp a ko am waaye bii moom dafa am solo nee na jihaad leen ak mushrikoon yi bokkaale yi ci naka nee na bi amwalikum alal jëfandikoo leen seen alal xeex mushrikoon yi wa anfusikum bu laajee jaamaarloo di xeex def leen ko wa alsinatikum ak seeni làmmiñ foofu nag la foofu la radd bi nekk kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne xadis bu wér la al imam ibnu alqayim dafa ne al jihaadu nawaani ne ni jihaad ñaari xeet la jihaadun bil yadi wa sinaan jihaad boo xam ne da ngay yor saw sab xeej sa ngànnaay jaamaarloog noonu bi nee na wa hada almushaariku fiihi kasiir nee na boobu xeetu jihaad ñu bari mën nañ cee bokk wa thaani nee na aljihaadu bilxujjati walbayaan beneen jihaad nag boo xam ne dangaa yor say lay yu jóge ci alquran ak sunna waaye dangaa yor saw làmmiñ bu mën a leeral mu ne nag wa huwa jihaadu alxaasa min atbaai rusul nee na ñay topp yonent ya nag lii mooy seen jihaad wa huwa jihaadu jihaadul aimma wa huwa afdalul jihaadayni nee na jihaadu kilifay lislaam yu mag yi jihaadu dalil moom lañ yoroon te nee na booba mooy bi gën ci xeeti jihaad yi li idami manfaatihi wa shiddati muunatihi wa kasratu aadaihi wala kasrati aadaihi nee na ndax njëriñ la dafa bari te yan la dafa diis maanaam woote ci dëgg te sax te di ko wax bu dégg yan bu diis la noon ya itam dafa bari kon loolu moo tax yombul al imam yaxya ibnu yaxya allaysi daf doon wax ne addabu an sunnati afdalu min aljihaadi fi sabilillah défendre sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën gàddu jaasi wala yàq wala fetal di xeex fi sabilillah kon tontu ñi nga xam ne dañoo jàdd mënta ñàkk moo xam ay yéefar lañ moo xam ahlu bidaa lañ mi ñu nekk ci ay bidaa wala ahlu maasi lañ mu doon ay moykat yoo xam ne dañu tasaare seenu mooy yàlla boole kook defal ko ay lënt wàññiwul dara am nag ay kuréel wala ay nit sax yoo xam ne dañoo nekk ay spécialiste maanaam dañoo taxasus ci tontu nangam nga xam ne ñii tontu kuréel sa diw sàngam mi kuréel sàngam ci la taxasus di ko tontu loolu wàññiwul dara ndax dana tax mu xóot ci xóotaay boo xam ne ñooña moom dana leen mën a faagaagal ci xam-xam boo seetloo ci jamono ji nekk mel ne الشيخ إحسان إلهي ظهير إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه kooku dafa nekkoon mutaxassis maanaam spécialiste ci tontu chia yi lim taalif ci ay téere yu leen di tontu bari na lim def ci ay conférence bari na rahmatullahi alayhi nekkoon nit koo xam ne nit ku yéeme la ku bari ay jaar-jaar la seeweem boo ko liiree da ngay waaru ci sa borom ba ci suñ jamono ji nit ñu bari ñoo xam ne xam nañ leen ci ne kii tontu ñi loolu mooy liggéeyam bu dee xiwaar ay xiwaar ak ñoom muy di dialogue di wax ak ñoom tontonte ak ñoom lan nag mooy maqaasidi radd jubluwaaye radd ñi nga xam ne dañoo jàdd maqaasidu radd ala al muxaalifin ba ci jëkk mooy qad'u lkufri wa ahlihi wa rad'u lbid'ati wa ahliha fexe ba kéefër nga yemale ko biddaa itam nga yemale ko ñaareel ba iqaamatu lxujjati wa izalatu shubha mën a taxawal xujjab lislaam ci kaw ka ami lënt wala kay jiima xeex lislaam ba noppi dindil ko ay lëntam ñetteel ba xiraasatu alaqidati walmanhaj bokk na ci jubluwaay yi mën a garde aqidatu ahli sunnati wal jamaa ak seen manhaj ba dara du ko bënn dara du ko yàq ñeenteel ba taxsinu shababi min alwuquci taxta taailati almadahib alhaddama almatliyati bilkalaam almaasul aar ndaw ñi aar ndaw ñi ba duñ tàbbi ci ay ngir yu lëndëm te bon yoo xam ne dañ koy jël muure ko ci bitti lu rafet loo xam ne boo ko gisee da ngay defe ne lii dëgg la waaye boo duggee fa ci biir xam ne caaxaan juróomeel ba at taxdir min ahli lbaatil wattandikuloo nit ñi ñuy ànd ak ñi nga xam ne nit yi neen lañ maanaam dañuy dañu nekk ci biddaaw dañu nekk ci kéefar juróom-benneel ba tanbihu lgaafil wa taalimu ljaahil ka sàgganoon nga yee ko ka réeroon nga xamal ko juróom-ñaareel ba iaadatu man charada ila alsirat almustaqim su amee ci ndaw ñi yoo xam ne dañu nangi faawi woon wala dañu këfoon leen ba yóbbu leen nga delloo siwaat leen sirat almustaqim kon juróom-ñaar yooyu maqaasidu al jidaal billati hiya ahsan ci la bokk wala maqaasidu radd ma jàll wala ma taxaw tayib tomb bi ci mujj mooy maa la yasaxu almustaxila bi raddi jahluhu kii jóg di radd am nay tomb yoo xam ne mënu koo ñàkk su dajewul ci moom sooy ba mu toog seeti leneen ndax liñ mën a liggéey ci lislaam bari na waaye jóg nag di tontu yéefar yi wala ngay tontu ahlul ahwa muy waa bidaa yi ka koy def da koy def te dugg ci te mënoo ko moom gàcce la léeg-léeg nit nga dégg ñu jekki-jekki ñi koy defal interview maanaam muqaabala di ko laaj ci ay tomb yoo xam ne ka koy laaj saboote man la ñu ahlu sunna wal jamaa moo ko tax a jóg mu am fitu ñëw toog ne day tontu loolu yéen koy laaj dara dara lu taxaw dugg ci tontu te moom moo toogal ci jataay boobu ahlu sunna wal jamaa su boobaa ñi koy déglu lan la ñuy wax mooy ah gaa yi kat ñoom ndekete li ñuy wax amaluñ ko dalil parce que ku yor xel ku nekk boo dégloo da nga xam ne waa jii li muy tontu nii li ko waa ji laaj tontu wu ko lu ko waral mooy dafa préparé wu boppam bu man ko beneen ba mooy léeg-léeg ñaar jaamaarloo yoo xam ne kii day woote ci biddaa kii woote ci sunna borom biddaa ba lam yor ci ay subha ak i lënt amaana sax ku jàng-jàng ba géeju la nga xam ne xam na nu muy sànnee ay lënt ak nu mu koy defee jàng sax li ñu tudde munazara muy dialogue nan lañ koy defee sun mbokk mi ñëw nekk miskin moo xam ne tuuti la jàng bu jàngoon dara ci xam-xamit xamul texte bi sax bu ko jëlee fan la ko war a teg ñaareel ba nu ñuy waxe sax ba nit ñi mën a xam li muy wax mu lott ca loola géew ba tas ñu ne waaj a gañe na ko parce que kii moom bu ko gis xam ne nii mu toogee nii ak col mi mu sol sax boo ko gisee da ngay xam ne préparé wul boppam pour mën a toll ngo moo tax tomb bi mu am solo la kon maa la yasaxu al mustaxila bi raddi jahluhu ay mbira ngi yoo xam ne ki jóg bëgg a tontu mënu koo ñàkk benn an yacrifa al qawaid al daabita lil jadal faaw mu xam règlement yi règle yi nga xam ne ci li ñuy sukkandiku ku bëgg a def jalo ku ko bëgg a def règle yooyu da nga koy jàng ba xam borom xam-xam yi taalif nañ ay téere ci aadaabul baxsi wal mumaadara ku mel ne Cheikh Mouhamad Amin Shinqiti ak ñeneen ak ñeneen ñaareel ba an yusaxixa niyatahu mu wéral yéeneem wala yaqsidu bi raddi ala almuxaalif alshuhrata aw altachafi daa jóg ngir défendre xaq dëgg waaye jógul ngir ne dama bëgg a siiw wala dama bëgg su ma gañee ñépp ne maa ko gañe wala dafa am lu ma lebaloon ma bëgg koo fay loolu moo tax ma di ko toon déet ñetteel ba an yakuna munsifan laa yuxaabi axadan ala alxaq falqaribu walbaidu indahu sawaun amaama alxaq mu nekk ku maanu dëgg lay seet aju ko nag ci dëgg gi kii mu jóge sax ndax ab noon la wala ab xarit la fu dëgg nekk foofa la nekk sallaaw bu amoon dëgg goo xam ne jóge na ci noonam da koy jël bu amoon caaxaan yoo xam ne jóge na ci ab xaritam bii nga xam ne mooy mbokkam da koy delloo da koy rat melokaan boobu mënta ñàkk ci moom ñeenteel ba an yakuna indahu zaadun waafin min al ilmi shar'i faw nag mu yor ab yóbbal bu wóor ci xam-xamu sharia nag loolu tomb am solo la bala ngaa jub di dugg ci tontonte xamal yow ci sa bopp li nga gëm lan mooy ay dalilam ci alquran ak sunna juróomeel ba an yastaxdira min annusuus alsharciyati waddalaa'il alcaqliyati walkawniya ma yakfi lilqadaai ala alilhaadi walinxirafat alaqadiyati walmanhajiya na teewlu fa mu toog na teewlu ci ay texte ak i dalil yoo xam ne yenn yi ci alquran ak sunna lay jóge yenn yi nekk dalili xel yenn yi dalil yoo xam ne ci li yàlla bind ci la koy jële waaye dalil yooyu yépp bu ko dajalee na doon loo xam ne ki dikk weddi yàlla sax du mën a taxaw ci kanam dalil yooyu waxuma laa nag ki ñëw nekk ci biir lislaam ba noppi yor ay dëng-dëng ñooñu ñëpp duñ mën a taxaw ci kanamam ndax li nga xam ne fàggu na ko ci ay ngànnaay yoo xam ne yor na ko juróom-benneel ba an yakuna aarifan bi madahibi almuxaalifina qadiran ala raddi shubuhatihim mooy mu xam ñi muy waxal ngir yi ñu nekk di ko défendre na ko xam xamin woo xam ne muy moom ñoom ñoo cay yem wala mu gën leen koo xam sax faf ibnu taymiya daa lañ di wax ne musta munazara kenn maanaam jàkkaarloo kenn ñuy werante ci xam-xam lu dul ngir ma nga nekk yow moo la ko gën a xam loolu yi kii munazara na ko aajowoo ndax ginnaaw xam nga ko xam ngay dalilam baat bu mu yëkkati da nga xam la mu bëgg a saxal lu mu doon nga dox digganteem ak mu saxal lool moo tax loolu mënta ñàkk juróom-ñaareel ba an yatadarraba ala usuli lxiwaar wa mabadii ljidaali billati hiya axsan faw mu tàggatu tàggatu ci principe yi nga xam ne ci la ñuy taxaw ngir mën a jolla sante di wax su nit ki waxee noo ko war a tontu ak loo koy tontu ak noo war a def loolu man damaa jàpp ne ci séminaire yi ñu war a def te tàggatu ci ci la bokk te mel na ne mbooloo yeeg daara yi mel na ne xaw nañ koo sàggane ndaw ñi jaadu nañu xool ñi ci pare nga xam ne ñooñu jekk nañ pour ñu mën leen a tàggat ngir ñu féetewoo di tontu ñu tàggat leen ci li ñuy tontoo ndax tontukat du xët xët rek du mer du yëkkati baat du yuuxu déedéet mooy ne tekk kii di wax nga déglu ko ba xam li mu wax bu wér a wér a wér nga andi loo xam ne boo ko tegee rek day dajji ko yàlla xam ne ne boo dee jàng téere ibnu taymiya léeg-léeg ñi muy tontu da ngay gis ne da ngay waaru ci yàlla tontu loo xam ne bu noppee kenn du xam loo cay teg chia yi bi ñu waxee ne ci misaal rek Omar ibn Khattab radiallahu taala anhu dafa takk Umm Kalsoom doomi kan Ali ibn Abi Talib chia yi li ñu wax ki Ibnu Taymi doon tontu ci minhaju sunna nabawiya borom minhajul karama daf ne Ali ibn Abi Talib li Omar lim takkoon jinne la dafa jël melokaanu Umm Kalsoom ñu defe ne mooma mu ñëw Omar takk ko ñu daal di ne kii takk na doomi Ali ibn Abi Talib du takk maa ngi yow suñ ko doon tontu lan la ñuy wax doon fay nekk daan ko déedéet loolu wérut ndax amul riwaay amul nangam nangam Ibnu Taymiya daf ne waaw ayna dahabat Umm Kalsoom léegi bi mu takkee jinne ji ba pare nag ana Umm Kalsoom nag après ah parce que jinne jaa nga ne li moom la takk xanaa Umm Kalsoom jógewul kër baayam moom réer mu ngoog loolu mooy mooy tadrib bu wér a wér ci usul yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku ngir ibtaal yàq li nga xam ne ki jàkkaarloog yow ca la sukkandiku woon nga mën koo yàq fi saa si ñi teew ñépp xam ne yàqu na loolu moom tàggatu moo koy indi ak xel mu dal nag juróom-ñetteel ba an yakuna indahu min al istiqrar an nafsi wa tawaasun al fikri maa yajcaluhu thaabitan amaam al xasm faw mu pare baale boppam nekk ku dal su ko lee agsi woon di saaga sax moom day ànd ku dalam su agsi woon di ko tagg nga xam ne ñoo xam ne noonu la ñuy def ci munazara di ki yëkkati ba ci ko ah tey de maa ngi dajeeg benn borom xam-xam boo xam ne jàpp mënoon dinaa dem ba toog ak moom ci jenn taabal nangam su ko defee nga daal di commencé nag daal di lem saw loos nag fasi daal di ne kii def na ma noo xam ne rus naa koo wax wax joo xam ne yenn yi du ma ci àgg ak moom fekk moom da ci ay pexe la nekk yooyu yépp du jeexital ci yow juróom-ñeenteel ba an yakuna fasihan سليم اللغة يسلك أقرب الطرق للإقناع إذا جادل باللسان فاو مو دون بروم لامين و لير نيكيت كوي واخ واخ جو موج لي ني تودé لغة سليمة موي لانغ يوي واخ نكو ديغ مو خم لانغ عرب لا مو خم تباب لا مو خم ولف لا مو خم بل لا مو خم سيرير لاك وم مانا دون غيناو كامي واخال لول لاي لاك موم نا خم لاك ووي بو وير waaye kër yi mënta taxaw yoru làmmiñam di tàntali yow booy wax sa wax ji ngay wax kenn du ko xam su fekkee ne wax ji dañoo jaamaarloo di wax kii na doon ku mën a wax te li muy wax na ko mën a leeral bu wér a wér fukkeel ba an yakuna kaatiban da qalamin sayaalin rasinin salim ida jaadala bil kitaab su fekkee ne dafay tontu ci tontu mbind na fexe ba xalimaam doon xalima bu mucc ndax kële nekk nitu caaxaan koo xam ne dem na jàng fànn yépp ay naxwoo ki sarfa ki balaaxa ki bayaana ki badi ak yépp ba bu bindee ñi koy liir duñ bëgg a bàyyi yow nga ñëw di da nga koy tontu ñaari baat yoo bind yu ne ak fot nekk ci loolu loolu du dem donte li ngay wax mooy dëgg du sotti il faut nga préparer sa bopp fukkee bal benn an yaxdara min raddi alxaqi xiina yalbisuhu almuxaalifu bilbaatil ahlul baatil mooy niti biddaa yi dañuy jël dëgg jaxase ci biir ay neen su fekkee ne dëgg gi neen gi la jaxase wattu la sànni lim wax lépp ndax yaa ngay sànniwaale dëgg ci biir seggal la ca doon dëgg téye ko la ca doon neen nga sànni ko lu am solo beneen ba an yaxdara min al iqraari bil baatil xiina yaxtalitu bil bil xaq léeg-léeg masala bi dëgg da ci nekk ak i neen waaye comme que ci kii la jóge rek ci sab xarit la jóge wala sa bokk nga nangu lépp fekk neen a ngi ci biir ba tey foofu it seggal neen yi sànni ci àll ba dëgg ga des ko ba ca mujj laa yuraddu ala kulli muhaajimin liddaawa fa baaduhum yabtaxi shuhrata min xilaali tasalluqi ala aktaafi man fawqahu ilman wa atharan du caagi ni ku jóg ku nekk di wax rek dañ ko war a tontu wala bu ko tontu mënta ñàkk dañu xool ki koy tontu ku muy doon am na ñoo xam ne attaque ya ñuy def leen dong lañ ci jublu mooy dañoo bëgg a siiw li ngeen di tudde buzz loolu la ñuy wut fan la ko mën a amee ci diw sàngam du ñëw ci moroomam mukk parce que moroomam du tax mu siiw du ñëw ci ku ko féete suuf itam parce que kooku du tax mu siiw waaye day seet koo xam ne xam ne ni kii du moroomam ci xam-xam du moroomam cib liggéey sax mu jóg ñollax ndiku di ko sànni ay xeer la muy bëgg rek mooy kooku na wax benn baat boo xam ne dañ ne diw sàngam lay tontu benn baat boo xam ne dañ ne oustaz jaay ji daal fulaan lay tontu su ko defee loola la doon wut te am na ko xoolatul lam doon wax ndax dëgg la wala du dëgg wala daloon waaye daal ñoom ñaar daal ñaari nit ñuy tontonte lañ léegi ci réseaux sociaux yi wala ci rajo yi télévision yi wala noonu moom loolu ittee looloo doon itteem am na ko su ko defee boo léegi mu xoolaat keneen ku mu jàpp ni moo gën a kawe mu sànneeti kooku aw xeer yu jóge foofu la fay xekk ma su fekkee li muy wax ay lënt da ca nekk yoo xam ne tey nit mën nañ caa loru ñu xool ko tolloog moom ci biir ahlu sunna wal jamaa mu jóg tontu ko loolu nag moo tax préparé ndaw ñi ñoom itam ba ñu mën a tontu nekk lu mënta ñàkk na ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu toog defal leen ko sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain